commune bu ne ñu tànnoon fa ay ndaw ñu ñëw ñu di leen former euh, war leen a dugal ci terrain bi euh, kenn ku ne xam ne ne commune bu euh, département bu ne jox leen quota ne la lii nga war am ci ay signature ñun nag muy département de Diourbel quota yi nga xam ne jox nañu ko mu tolloon ci quarante mille quarante mille ak quelque cinquante mille ñu ndaw ñi bi ñu toogee ba waxtaan ba xam ne déggoon nañ ci genn kàddu ndax. sunu objectif nag mooy ñu cent mille signatures Euh, la ñu visé au niveau du département de Diourbel jàpp nañ ne war nañ koo man jàpp nañ ne war nañ koo ma euh, sunu capacité war na ko mën a doxal loolu daal lañ ci jonoona bi tendance amatu fi boo gisee kuréel gi ñëpp a ngi ci ëmb ci biir lu mel noonu moo tax nag tey li ko waraloon mooy divergence yi amoon ci entre les leaders loolu yàlla dimbale nanu ba élection yi ñu jëm bu soobee yàlla euh, mouvance présidentielle benn lay doon au niveau du département de Diourbel ëmb nag ñi mboolem ñuy soutenir président